d'accord merci beaucoup alors nañ wax ci leneen nga xam ne nii moom tuuti moo ngi def coow ci mariage boobule. Euh, gannaaw ba ki nga xam ne mooy biti je sais pas est moom la wax sax wala du moom en tout cas vidéo bi daal maanaam partagé nañ ko ñuy déglu ki nga xam ni mooy voix Baye Ndiaye di ñaanal ki nga xam ne mooy biti naa ko yar naa la takk ça veut dire que maa yow yaa ngi dem ba sëy nel amin donc ay xale jigéen ñi bëri jàpp ne maanaam waru woon partager li nga xam ne mooy vidéo bi parce que day naqar dafa mel ni maanaam ay defante la wala tamit kii di xam ne mooy aaw bi bu gisee dina am lu ko naqari te demagul wala yàggu si ba commencé defante loolu du nga xam ne di yoon la je ne sais pas est-ce que jigéen ñi jàppee ou pas man en tant que góor jàpp naa ne loolu si dem di ñaanal sa jabar wala di ñaanal sa gel nekku si le fait ngay def li nga xam ne nii maanaam yére bu baax nga si am rek dara nekku si man su ma demee màkk dinaa leen kii dama koy ñaanal voilà ñaanal par force mu xam na ko mu xam ko mu ñàkk xam su ma dee. ma dama koy ñaanal indi na affaire bu garaaw nag dina tax góor ñu bari ne dañuy dem Màkka. sérieux la man yow di ko wax de man su ma demee man dama koy ñaanal. moom xam na ko xaw ma ko mais su ma demee man dama koy ñaanal. te yàlla nga ko takk. dem naa ko yàlla takk te yéexoo la yàlla naa takk te yàlla bu am wujju xaaral loo gën a garaaw. astafurlah yàlla naa takk te yéen nga am yàlla nga am wujju <laughs> alors mais nañ dem si ànd vidéo bi daal ñëwaat si plateau bi ngeen ko faram fàccee fan wu gudd may la wér defal la sutura sàmm la bu baax sàmm say waajur sa yaay sa papa sa sœur say frère sàmm la bu baax yow biti defal la fan wu guddi defal la wér maa ngi la koy ñaanal fii di la ñaanal yàlla nag ngay sëy ak man ci barke yaa rasulillah ci barke kaala gi maa ngi la koy ñaanal fi bu baax yàlla dina la ko defal léegi incha allah waxal amin rek jërëjëf maa ngi lay ñaanal yàlla may la fan gudd may la wér defal la sutura sàmm la bu baax sàmm sa waajur sa yaay sa papa sa sœur say frère sàmm la bu baax yow biti defal la fan bu gudd defal la wér maa ngi la koy ñaanal fii di la ñaanal yàlla nag ngay sëy ak ma barke kaaba gi maa ngi la koy ñaanal fii bu baax sallallahu alayhi wa sallam mais y rien de mal à ñaanal ki nga xam ne nii moom nga bëgg fas soxna parce que am nga si moom si yéen nga xam ne mooy yéene bu baax pour quoi mun a jur polémique d'accord ñaareel bi wala aaw bi bu ko gisee day ni kon kii kat ñoom ñaar yàgg nañ moo koy nëbb mais tamit ka mooy takk ñaar rek wala ka mooy doxaan ba pare dinaa sa sa jabar. maa ngi doxaan wala maa ngi doxaan loolu manque de respect la donc ñu jàpp ne vidéo bi béti wala ay xayta wa ñu ko woon génnee pourquoi ñu wax loolu nee naa. mais yaa ngi wax lu am solo nag kan mooy doxaan dem ne sa sa jabar maa ngi doxaan. manque de respect rax ci dolli xale bu mel ni béki. nandar ah xalaas <laughs> yàlla boo sëyi nag. waay yow takk da ngay sëyi. bàyyi. koo ne maa ngi doxaan ki mu jógal la. Hmm. xale jigéen yi aawa yi. sama sama moroom yi. Hmm. aawa de waaye xam naa ni jéeg boo ci ne maa ngi doxaan rax ci dolli mu xam ka ngay doxaan da lay jógal. la lay jógal ba yow faf doo jógal faf déggoo ma de. d'accord dégg naa waaw kay mbaa sa xel dootul nekk ci ndaw si abadan li mu def rek laa ànd ba pare moomoo kañ nga génne vidéo bi bi ñu ko takkee. ba pare. c'est très important. xam nga sànq maa ngi koy wax ci samay début. xale jigéen ñu ci bari ñoo catu ci seen bopp ndax fësal ki ñuy bëgganteel mbaa ñu naan future madame nangam future madame nangam yépp kànnaare ne fii moom bu dee fii rek kenn du fi dugg. mais mais mais nee naa déglu ma non non ma daal mais dama même la fekkee même fekkee sax dañ ko takk par mu mu génne vidéo bi. Mhm. mais aaw bi bu ko gisee. Mhm. dina am lu ko naqari. kan moo la aaw bi lii comme ça defante la. dama ne yow yaa gis defante. d'accord man gisuma defante. xam nga defante. Mhm. naa yow naa aaw nga de. parce que xool lay wax. kenn du ma yab aawalaay doon. d'accord vas-y. aawo laa kenn du ma yeb aawo laay doon. lan la taxalagul ah, <laughs> demal continuer. kii xulóowul dana dama koy wax man tamit. am aawo laa kenn du ma yeb aawo ah, laay doon. sant ñu <laughs> mais mais gaynde gi mi ngi seetaan. waaw waaw bëgg mu déggaale. <laughs> xalaat xalaat tiit ka. donc non man yow yow yow man ci pas de ça. nañu wax ci aali kàlla gi dama ne la. Mhm. du defante yow mu gis defante la jàppal ni defante la dañ koo takk moom ci farataak sunna ba pare ki ko takk ki ko takk moo dem ba makkatal mu karam nga xam ne nee nañu loo fa ñaan suñu borom nangu ko hmm. mu ne ko yàlla na nga sëy ak man loolu ku mu doyul dara dootu la doy gis nga bu ko takkul woon rek lii ndam la kon ma am naa droit dem màkk ñaanal kii waaw ah yow kii dafa bul xool déet bul wax dama lay laaj rek dégg naa lu yëg mu siiw. dafa téléchargé photo bi. waaw moom laa koy wax. dafa téléchargé photo bi dëgg. célébrité moomoo. astafurlah. allahu akbar kon kay yow yow li nga doon kaa kooku noonu ba mu naroon ñëw kii yow ndekete looloo tax nga doon kii. Hmm, kon kon kon di kon yéen kon gëm maa naa leen ko de. yow mais moomoo yow ñu ngi kaa fii nga bëgg maa tegal ba kaa yi dee ko tempo tempo def ko ndax. demal demal kon demal. moomoo kii la. kii la. moom lay doxaan de. tafurla uus nag. uus wax fi ne faram dama ko teel saaga. Oh, waaw yow kii xam ngeen ni yow ki ñu génne woon tiit di Véronica. Hmm. kii de gën a tooy Véronica. kii de siiwul. ah ku siiw kii. sa ah, diggante ak yàlla ay eh, booy booy wax may wax tur bi. kafuma ci réew ma ci. Euh, léegi fa la na ngaa tiit. mooy wax ba léegi man joxagoo ma kàddu. <laughs> daa tiit. dama ne. Hmm. ki ko takk moo dem ba màkkatal mu karam nga xam ne loo fa ñaan. Mhm. suñu boroom nangu ko mu ne ko yàlla na nga sëy ak man loolu rek ndam la waa léegi bu ndamoo wut lii moom lan lay ndamoo ba pare kaay wax la. Mhm. yaa ngi wax sànq lu am importance danga ne lii bu ko defee ça veut dire so sori na ci moom. est-ce que dégg nga ma. waaye moom it mën naa sori ci xolu bétti ba bétti ne ko bés boo demee Màkka damaa bëgg nga ñaanal ma fa nangam yónnee ma vidéo bi lii di souvenir. bu mag sax lii dañ koy denc di ko nettalante laataa sa papa di ma takk. daa dem ba makk ñaan ko fa. aywa lii ko ma bëgg waaye doo ma bàyyi. bu ñu demee c' est l' amour. c' est ça l' amour. allez vas-y Ousse da sa gel. man yàlla dogal na man sama premier amour yàlla dafa dogal dafa def choc làqu. Hmm, ndeysaan ki man ñu ko nobanteel sama àdduna kooku suñu diggante maanaam bi ma ci yéene. damaa dem ba ci barabu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ma taxaw. vidéo ko mu yëg nga koy gis ma ne Serigne Touba maanaam ñaan ko ne ko lu ma def moom na ma neex ma ne lu ma def na ko neex ba yàlla boole soxna Jaara di ko ñaanal. àjjana firdawsi. amiin amiin waaye di ko bëggante ci àdduna. te ko damaa dem ba ci barabu suñu Touba toog. yaa na yàlla boole àjjana. encore vidéo yàlla ko yéex a fekki nag. <laughs> d'accord. saabu def na. pour muy leer rek pour moom damaa yërëm toll nii dem maa ngi. al moomu di ma di ma ñor di tristesse nii non ba al moomu mi. bit lay gën a nit léegi d'accord day leer rek de def na bu yàgg koy ñaanal àjjana nag firdaws waaw <laughs> kese am nga domb con. alors <laughs> góor. mais waxee <laughs> bu ma wax ba ba nga jaawale turi fekk ma fi moom mu ngi àjjana macha allah bu baaxoon la. rafet yaru bëggul suñ tubaab di def xasida yi noo xamante ni jéggi na dayoo. moo taxoon ma ñaan loolu mais comme jiitu na nag. comme ji <laughs> comme jiitu na yàlla ko yàlla <laughs> eggalee ndawam àjjana d' accord léegi maintenant ma àggalee fi sama mag waay joo xam nga yàlla pare mu mu ren ndox waaye ngir yàlla ngeen moom ma indil ay ay ay ay confidence bi ma jooy bu ma jooy la di ma indil naan ma non di bëggi faalewu ma la naan may xool boobu li jëntiw mën a tax waay d'accord ni waxee yàlla naa ko yeexam tekki loolu loolu loolu léegi d'accord merci beaucoup Ouzou ma ndaw ma man ma àggale ci sama mag d'accord merci beaucoup <laughs> moo tax léegi comprendre naa d'accord Amine alors maintenant est que yow est-ce que nga def ba màkk <laughs> di ñaanal ki nga xam ne nii oh, mu nga bëgg takk ñaareel wala ñetteel wala ñeenteel déedéet mu man foog naa ni nit boo ko bëggee takk dem ba ci Seydina Mohamed. wallaahi boo doon fen sax dinga wax dëgg ndax vidéo bi. <laughs> dëgg la de. si man de mu mhm. barki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul. Mhm. Euh, dafa am lu dogal. su ma demee ba ci yonent bi. même ku jigéen gi su ma ko bëggutoon. Mhm. ne ko nangam. su ma ñëwee dama lay bëgg par force ngir sallallahu alayhi wa sallam. dëgg wax dëgg fa yàlla. ndax nag ñun amuñ sànq wax naa la ko ci maam Bousso ba nga ba nga ba nga ba ngay wax. Euh, junior maa ngi lay siyaar bu baax a baax sëñ bi duma ko génn sama wax te yow daaw yaa may wax ma génn sëñ bi sama wax. si sëñ bi laa am déglu ma yee eh, déglu ma. moomoo déglu ma man Cheikh Ahmadou Bamba Khadim su rek laa bëgg. loolu xam ne ko waaw déglu ma moom moo xamul ñu xam nañ bu ma ko wax. non ko lijjanti déglu ma damay wax fii damay wax de. xam nga lu tax man bu dee ñii hasard nii suñu biir saaga ma. Mhm. mais sëriñ bi nday kenn ëppale ma ci bàyyi kenn ëppale ma ci ba dama ci fenn. d'accord kafuma ci fowuma ci réew mi. xam naa ma ni la eh, amul kii bu la neexee nag ci leneen. Mhm. saaga ma ci ndey wax mu la neex. mais sa ndey moom ma sa bàyyi moom ma ba ni ma jàppee sëriñ bi kenn jàppaloo ma ko kenn du ma ko bàyyiloo kenn du ko duggaloo samay wax. ak di ko génneloo samay wax léegi d'accord waaw na contrôler keneen ci loolu wax ma leneen nag mais sëriñ wala di ma ut foo ma ki tegal. mën nga ko saaga mais ko bëgg sa kenn du ma ni def ci nii wala def ci nee. d'accord léegi waaw kenn du ma ni def ci nii wala ci def ci nee mhm. yàlla ñu yàlla dimbali. teral ñu sagal ñu ba heureusement ki ko ñaanal moo ko takk. ki dem ba ci yonent bi. moom moom moo waxaat la ko. ma ne la barki Cheikhul Khadim jigéen bu may kaf yow te nobbu la sax juum ba dem ci yonent bi. wax fa lii lii lii. damay dëggal barki Cheikhul Khadim damay dëggal ngir yonent bi. ndeysaan. damay dëggal ngir yonent bi ndax kooku lu mu bokk moo gën lu mu bokkul fu mu feeñ a gën fu mu feeñut mhm. lu mu laal a gën lu mu laal suñu ndey suñuy baay suñu bakkal suñu nooy ñépp moo tax mu am su may kàcc ba àgg ci moom bàyyi kàcc mhm. béti gisuñ ko mu futti taxawaaluwul mhm. defu leneen ak leneen ak leneen benn problème la ko mu a dégg te problème ba ndax affaire affaire da amul la comme nekkaloon la fii mooy ni ngay amee problème ma am problème keneen ak keneen ak keneen ak keneen am problème te ku góor ki da koo bëggoon da kaa rek. waaw yaa ngi comprendre léegi nag gis na ku ko yërëm. Mm. gis na ku mu àndal bëggante neen pour pourtant bettuñ leen ci ay hôtel de. déedéet. bottuñ leen feneen ak feneen de. xam nga kan leen xam. biñ déggee alxayri non ñun xamoon nañ. ndax publicité Zador jaar na fi. Mm. ñun nag <laughs> yiñ yiñ doon ay résisteur te fekkee ñun yàlla dogal na bëri na. Mm-hmm. ñu joxoon diggante bu yàgg la. Mhm. di du diggante bu bees wala lu ñuy nëbb. six ans de relation. ñi ñi bàyyiwul xel sax ñoo bàyyiwul xel wala ñi xamul ñoo xamul. Mhm. wala ñi nàngam sàngam ñoo nangam sàngamul mais ñi xam xam neen. Mhm. deful lu aay deful lu métti deful leneen ak leneen ak leneen ak deful leneen ak leneen ak leneen pourtant ni mu defee vidéo envoyé ko. noonu la oustaz Modou Fall di nekkee ñaanal moom moom moom maa ngi fii ci bërëbu sallallahu alayhi wa sallam nangam sangam ñaanal la daf ko ñaanal rek. d'accord mais gars yi maanaam. léegi gars yi gars yi moomu jarul gars yi gars yi boo leen bàyyee xel doo dem gars yi ñoo xam gars yi seen bëgg-bëgg rek lañ xam. mais aussi d'accord. gars yi seen bëgg-bëgg rek. je ne dirai pas gars yi man man man wax man euh, waxuma. maanaam le fait que mu dem màkk ñaanal bétit loolu. sa baay yow ëpp ma taalibe si ñoom sa baay ëpp ma taalibe ay jubóo waaye xuloo bàyyi ma de léegi d'accord dama ci mais dama ne la ci cadre kenn doon nit nit du ma ci contrôler moom moom loolu dama la ko wax dimbali ma dimbali ma tuuti waaw dimbali ma waaw dimbali wuy ma wuy ma ma Seexul Xaddim may naa la ko demal du ci sama ndey du ci sama baay kafuma ci xam naa ne waaw waaw wuy ma. maa ngi si yow si yow laay wax nii. ku am taalibeem na téye taalibeem. Mhm. ni ngay dundee ni nga gëmee sëriñ bi jàppee sëriñ bi di ko dundee sëriñ bi man lijjantiwuma ko. Mhm. sama caaxaan maay caaxaan. Mhm. li may génne sama làmmiñ man la li may consommer sëñ bi sëñ bi bu may fay man lay fay fay ko sa ndey fay ko sa baay fayu la ko man la koy fay. maandul ci sama taalibe nga conseil sa taalibe bu dee nag lii wax ma àdduna yii ñuy wax. sama foog sama ñàkk xaw ma wax ma ci lu la saf. mais mbir sëriñ bi xajalu ma ci kenn ku ma ci naan virgule qui que ce soit barki Cheikhul Khadim. d'accord merci beaucoup alors euh, ñu ñëwaat maanaam si li nga xam ni mooy vidéo bi. Euh, ñoom changer le débat rek ñoom moom ba ñuy changer le débat. <laughs> d'accord léegi euh, maanaam <laughs> peut-être ñeen ñu si gisee mooy tey jii nana yow mhm. boo amoon wujju nga gis monsieur Fall ndeke dem na fu màkka bay ñaan ak ki nga xam ne mooy si wujju. Mhm. naa ko yaa naa takk. vidéo bu génnee. sama loxoom ci dénk waaw tôt ou na naa dénk. tôt loolu vidéo boobu dina metti na naa. metti non du ma metti. d'accord kon xam nga lu metti. Mhm. parce que peut-être euh, gis nga góor su demee ba takk nit rek bëgg na ko te keroog damaa toog fii ma wax la lu am solo. Mhm. man la góor boo ko bëggee yow ku jigéen ki kum la indil nga teel ko. Mhm. déggoo ma de. mais jalousie nag si takk ñaareel. waaye yow yow doo bàyyi gis na kuy jalousie ci takk sa jëkkër takk ñaareel bul bul sëy demal nga xoolal xam nga lu ma bëgg. non non non mais franchement. barke Sëriñ Bamba non non non nana nana jigéen. góor ñii de peut-être Ousmane moo waroon wax loolu. ku ci takkul yaa ngi doxaan sama bos bosu keneen bosu keneen ak keneen ku ci takkul yaa ngi doxaan. dégg nga ma <laughs> ku ci tax yaa ngi doxaar góor ñëpp la mais déggoo ma sànq dama ne la yow ci sa jëmmi bopp dangay xam sa bopp fees sa place mën sa góor dégg ma ba benn jigéen bu ñëwee na toll ni inama na rafet ba mel ni Jessica waaye du la jaaxal ci dara daraay feemu jigéen du ko sa jëkkër du ko jaaxal parce que danaan sama jeeg ba ak lu ma nit ma a defal moom defal na ma ko mooy fees sa place mën sa boor mm-hmm. déggoo ma de nóoré ni dalaa dalaa wax sànq lu am solo gis nga jeeg ji léegi nii jugé wuñu kenn nag mm-hmm. dañoo jël sëy bi def ko lal ba guddi gi jëkkër ji wàcc na naa sol sama nuisette wala ma sol sama nangam ak nangam néeg ba daal mooy sëy bi alors que loolu mooy dernière chose ci sëy bi góor fekk yaa ngi mën biiram lu mu lekk sa loxo moo ko togg du la fàtte da ngay ay pensées moo tax sànq wax naa la ne la jonge mhm. du mooy téye góor donte ci la bokk. kon lekk mooy mooy règle numéro un. mooy règle numéro un kon jigéen ñi mu togg yërëm naa leen. waaw fexe nag ba sa jëkk respecté la respecté bi bokk na ci. du ma du ma seeti lenn lu jigéen war a defal góor ma di ko seeti ci mbedd mi te mën la koo defal déggoo ma de. non comprendre ma exactement li ko foofu. fóot paase. raxas bale togg ma dem di ko seeti feneen te mën koo defal sama bopp man. Hmm. pour lan mais fekkee ngay liggéey nag. waaw bu fekkee ngay liggéey yàlla minimum ma d'accord maximum dafa am minimum dafa am normal am tubaab loolu la la indil. xale yi takkaay def bon bay def lépp. moo tax nag xolal koo ci gis danga naan kii wax yow kii nu mu rafetee kii nu mu jongamaa xoolal waa jëkkër ji lu muy wuti ci kii. génération bi. fekk xoolal kaay nag ma wax la génération bi jamono jii ñoo gën a xam bu baax lan mooy sëy. mais mënuñu ko. de waaye yow xam ko. wala bëgguñu ko bokk dama ne dama ne fa jigéen fa fa jigéen ju baax daan nekk ba léegi ma nga fa. am na bëreetul. am na mais bëreetul nag. non non xeetu mbaaxam foo ko hmm. takk waay toogal foofu yow. Zeyna Ndour. Hmm. boobu y' a plein d' autres xamante ni baax la ñu def gën mën a sëy bëgg sëy. baax. Hmm. gën bëgg sëy mën a sëy. si réew mi. waaw am na. 10 pour cent la. ba pour cent 20 pour cent en tout cas am na. même 5 cinq pour cent sax am na loolu la loolooy l' bi. fexeel yow ba yow ku góor ki booy dugg na nga dugg ci koo xamante ni tey jii parce que képp kuy dugg yaakaar ngay duggee. Mhm. waaye naa fexe ba dugg ci koo xamante ne tey jii même bu dee ba minimum bi dina ma ko mënal muy mën sama biir ba duma ba duma intoxiqué waaye wóolu ko ba parce que waykat bi dafa wax lu am solo jëmbët fa nga wóolu dénkaane kala doy te njaboot gi nga xamante ni yàlla dala koy dénk yow it da koy dénkaane soxna si donte yéen ñaar ñëpp lañ ko dénkandoo donc da ngay seet sa yaayu doom moom it mu seet bàyyi doomam est-ce que dégg nga ma. voilà góor nag soo bañee mu doxaanal la wala mu takkal la takkal encore une fois takkalu la doxaanalu la mais comme que waxin bi foofu la jógee noonu la ñu koy waxee. parce que góor gu jigéen ju ci dégg ne jëkkëram mi ngi doxaan mu ne moom de day doxaan day nangam day nangam jaral na ko mu tas sëyam te kaay la mu moo maa ngi ko doon wax sànq. jigéen ju ci fiir ba tax nga tas sa sëy feneen fooy dali xamuloo ko te kaay ma la boo tasee sa sëy ndax doxaan di nga tas sa sëy ndax takk ñaareel parce que góor ñëpp a yem six say neuf boo ci juutal mu jox la morom ba. d'accord maintenant ñi ñi ñi wax ne peut-être euh, Fama Kassi moo ngi koy wax. la mhm. plupart ñi nga xam ne takk ñaareel. Mhm. maanaam seen aaw la leen koy choisiral. wax naa la ko fi sànq rek. voilà loolu moo tax am sax ñu naan maanaam biti moo fa jiitu nga xam ne ni mooy aaw bi que. vrai man de xaw ma xaw ma de. waaye daal moo ñoom ñaar ñoom ñaar mais mais loolu c'est impossible parce que parce que man deux rumeurs laay dégg. Euh, dañ ne six ans de relation. Mm-hmm. te moom mii bi mu takkee aas yi ak léegi ëpp na six ans de mariage. comme xam nga. Mm-hmm. donc naka la mën a nekkee six ans de relation. kee la njëkk a xam. que nangam ak nangam seen xel rek la ñu wax nañu wax xamante man xamante gi moom yàgg na. Mhm. xamante gi yàgg na xëy na dudd gi yàgg na moom waaye yooyu yooyu yëpp moom moo ci àdduna yooyu yëpp amul sens. Mhm. xam nga tax amul sens kee takk nañ ko soxna la kii takk nañ ko soxna la. Mhm. te béti vidéo bi gars yi di bëgg wax du da ko publier woon déedéet. pour da ko dencoon ba nga xamante nag. doon na madame Ndiaye dégg alxayri mu sante ko yàlla suñu borom. loolu day wane ne ko lii la lii lii lii lañ doon ñaan. am na mooy li ma la wax sànq rek yàlla dogal na keneen ak keneen gaa yaa ko bëgg a réyal critiqué ko. mais tey boo demoon manqué di nga ma ñaanal vidéo ko ñu ngi ko fiy gis pour waaw chaque jour te pourtant pourtant gisuñ beneen pour pourtant mun na am ah vidéo na aawam ñaan ko yàlla nañu yàlla suturaal defal ñu taw. Mm-hmm. Mm-hmm. te gëm naa sax def na ko. def na ko. mën na am defal na ko xëy na keneen ak keneen. mais kii génnewoo ko ci bëgg koo génne. dafa xaar ba dégg alxayi madame Ndiaye. doo koy maanaam fu mu doon gën a graawee. maanaam ñu ne avant. avant la mu indi. mais kii bi mu déggee alxayi ak lu mënti xew léppam téye na ko ci sutura. ba nag farata am mu wone. moo yay nag. yaa ngi comprendre. léegi nag looloo am pourtant jarul jarul métti ku ko bëgg a métti rek. nii da ngaa métti na. ba pare xam nga xam ne moo yaay. jarul métti mu moo. Mhm. tey ji bu ko génne woon bu bu bu ko jabar ji tëqatalee mën na ne ko dama doon kaf rek sama jigéen la. Mhm. lu ci waay mën. kaf si yan <laughs> waaw waaw dof mais. bay fi yow café bi vidéo bi. nee automatique ñun. yow ak góor. dañoo gaaw ban góor. ñoo raw patin ñun. automatique la am. automatique nii lu waaw wuy lool. <laughs> en tout daal euh, ñoo ngi di ñoo ñoo ñoo di souhaité heureux ménage di ñaan seen sëy yàlla rek sëy bi bàkkee. Euh, yàlla musal leen si cat ak làmmiñ comme ni ko waxee. léegi mm-hmm. léegi rek waaye en daal ku fi am lu baax. Ah. bu yóbbu nga nëbb ko de. waaw Habib Ndiaye de bu nga gisee perte nga. sàmmanteel sàmm nga woon. sàmmanteel alors grand mariage bi mu jàllee nag am na ay témoignages yi nga xam ne nii ñu bëri ñoo ko doon def peut-être mën nañu wax ne ñu bokkuloon série Pod et Marichou ku nekk génn nga def say témoignages ak génn Sénégal yi xam ne ay série